maa ngi ni Cheikh ku si nekk ma ngi lay jox sa wàccuwaay si suba laa gis euh, photo ki nga xam ne Lansana Diaw nekk GPS Grand Yoff yaakaar naa bu ma juuma euh, ndeysaan mu nekkoon koo xamante ne dafa exilé depuis août deux mille vingt euh, mu nekk quelque chose bu métti dama xamul ndax moment bu muy exilé si la si la def euh, bon si si la def accident bi xaw ma je ne sais pas parce que tey jii ut ku exilé août ba on euh, marche hmm, presque six mois après ñu gis sa corps xel yi day xaw a lënt tuuti si peut-être ndax demul ba yegg euh, leneen ak leneen am fi voilà li ma jaaxal kañ mooy depuis août bi muy bi nga xamante ne dem na exile bu fekkee ne moment boobu dafa am accident si géej bi bañ trouvé kooram si mois bu fekkee ne moom août la am affaire bi normalement eh, corps bi dafa war a déco yaakaar naa décomposé la ñuy wax parce que si mois dafa bëri léegi nag li ma jaaxal mooy pourquoi ba marché tey ñu doog retrouver son corps xel mën na daj lu bari kenn xamul na après dañ ko jàpp wala boog kenn kenn xamul na dañ ko jàpp def ko liñ koy def après sànni si géej gi on sait jamais daal parce que deful luus daal te bi muy jaare Gàmbi bi muy dem Gàmbi kenn xamul bon loolu la jël quoi. mais li ñu repêché corps bi ci géej bi loolu moom ma xaw a yéem daal voilà loolu rek moom ma xaw a yéem mais yal nañu yaa dolli sutura moom moomu yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana bi jaay nabi Mustafa alayhi salaatu wasalaam metti na nag di masawu njabootam bu baax a baax di masawu njabootam bu baax noonu metti na trop doo xam sax li ngay wax ke lan la waaye yal na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana bi yaa nabi Mustafa alayhi